ji ni muy débarrassé parce que mënatu la jël li yàlla wax ci alquran ulaayika alladina nasullah ulaayika alladina nasullah fa ansaam anfusam ah la mu wax yonent bi bi mu ko énuméré bi mu ko énuméré les aspects négatifs de notre développement wax ko wax na ko yonent bi ci alquran wax na ko yonent bi man intervenir parce que li buur bi wax rek moo nekk dafa am façon mu développement bu amalul nit ñi njëriñ parce que di jur équilibre te lu jur équilibre jaru ko moo tax mu tuddal ko développement aspect yu négatif yëpp te yonent bi ñeewante nu nit waaye mënul intervenir mais conscience am dana àddu ba mu àddoo nag لك يلا وحبتا لنفتنهم فيه لنفتنهم فيه استتميز الإبغاو بس كدب لك ما من نعم مليان للدجلين من كدف مجد مجد ورزق ربك خير ورزق ربك خير يلا وحنا اللي انا نتبيني كل في ما يجاري اللي ورثه موطني موطني في السيستم تاعها اللي يجاري اللي ورثه يلا وحنا انا نتبي ورزق ربك خير تخير مما يجمعون ها accumulation اي شاردسو d'action accumulation bombe atomique accumulation بنك banque accumulation contrat accumulation ay projet yàlla nee na bi ma leen proposé moo ëpp jàmm ndax di ngeen ci dund te du ngeen torox bii nag da ngay torox sa ciy dund yàlla ko wax wa risqu rabbika xayr te xayrun sax min ma yajmaun accumulation bi lay bari pour wax la ni pexe amu ci nag ci pexe amoon ba tey ñu saafara ko mais pexe amu ci mais sañ na ko tudd ni baaxul mais pexe amu ci pexe parce que boo ko bañee doo dund waaw boo bañee doo dund mais sañ na ko wax parce que yow la géré contradiction yooyu yow la ko géré loo waaw nekk baaxul ba duma ko ci lii nga nekk baaxul wante duma ko fi nga d'accord nga seet nooy dunde rek sëriñ Aliou Ngay boo waxee mu ne ah lekk médité bu daga ne lekk ne waaw dëgg la parce que yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqaat dafa am benn بالنفس إلى الزحف بني وقت سقراط سقراط الحكيم سقراط بني nitu diine yi nañu daje ak نحن ndax nun dañu ragalante ci sunu biir ndax guerre dañu ragalante ci sunu biir ndax guerre léegi am na ñoo xam ñoo gën a dangereux nit ci guerre te mooy al anasirul arbaa nit dana geer juróom benn weer la mu yàq ngelaw mën na ñëw yàq ko ci benn waxtu nit mën na geer juróom benn weer ndox ñëw yàq ci benn waxtu lu ëpp la mu yàq ci juróom benn weer safara noonu suuf noonu moo tax sukkuraat ni nañu daje xalaat bu ñu mënee saafara ñu lottal anase yi ndox mi lottal ngelaw li lottal safara si ñu def ko ñu daje liggéey ci li liggéey ba mi ngi mujj ci loxo si di reyaax alors famille am ñooy fexe ba moo ba jot moo sax sawar na ci am na rek lu mu ca bind wax ni bu sañoon texte ba kenn du ko arabisé dañ koy bàyyi ci luga cosaanam luga labriya waaye xóotu ca ndax tubaab yi sax tubaab yi sax dañu wax ci at yi passé nekk jant bi dafa conscience ñu ngi koy soog a seetlu ma ni waaw jant bi conscience mu jël benn àdduna def ko tabletu bër rek mbeke ko ɓenniwa mo amul woon conseil ma ni te seet leen ba ko yàlla waxe yonent wa in min in de wa in min in la wax yàlla nee na amul lu amul conscience mais rus na dara di dund ci àdduna te amul conscience rus na ko wa in min in la wax lépp dugg وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه منيا نبتدي يعني عند اليوم يا نحب دائما خبر نحن نك أم نقول شخص تمن رك لم يسبب جن تبان لك كم ده تبان لي تم دليل يك نعم هذا نبالي تيجا دنيام كومبلكس taayee yëpp ñu ngi ci bëgg a dellu cër bi ci loxo yàlla mu tëleen tëj ndax day rëy dañu rëy waaye wa in min shay'in illa yusabbihu bi hamdi walakin la tafqahuna tasbihahu loolu la wax mu mel ni kon anaasir yi al anaasirul arbaa man bi may dem ci prison bi yóbbaale naa document bi j'ai essayé de revoir ça mais dama mujj daw parce dañu am conscience te dafa am lu ma ci mas a daal dama mas di tagg benn dex xam nga rek boo dee wëy lu ne dal ci may tagg benn dex kii moo ko bind Alaaji Malick Cissé Djingué moo bind xasida ma tagg dex gi ba ne ko yaa gën a yaru géej mais dootuma ko def mukk mukk dañu mujj ni ma bu géej gi yaru dex dex bu géej yaru woon dex dex du am waaw xam ni dama juum waaw parce yëpp dama ma ci géej gi di sangu ragal ni woon na ma granted borom bi ku dimbali yonent bi xam bi yonent bi di jaar ci tornade ak

déggu ko parce que yonent la du bu doon scientifique yàlla dana fa ñaari weer di ko jàngal waaye naka la ko wax rek ni ko yasaar la fii fii non tourbillon boo xam ne ko dëkk rek yonent bi dal di dégg développement énergie waaw bu looloo tax mag ñi nekkoon fii ragal quatre heures ndax sit yi te comme man dama jël wax ne fii lu neex waaye mu wax ku ko neex mu toll mu ne ma dana am bés bi lekk lekk na mu ne ma baal ko wax ma ne ko kon nag nit ñi ñaan ba te mën na bu dee ku nekk tooñ morom ma te kenn du réagir parce que Sénégal yi dañu na sax réy ni ñu mi gëmul yàlla réy nañu génni dañ ko mën yéex loolu ku ne xam ndax dara mënu leen te naan seen laajte waaw dara mënu lekk seen ceebu jën kenn ku ne ñu saaga ko boole ci loolu du sotti loolu du sotti moo tax mu ni ma man ragal naa bés en affaire lekk lekk ka weer mën na nekk mën na nekk.

bu ñu demee Amérique du Nord nag toj yoo fa nekk yëpp la wàññeeku dellu lalu ci Cap-Vert seetal loolu loolu lu ci Socrate ba amu ci la mu ni nañ ko def dafa mujj ñaan ko ñaan soo ko ko parce que kenn amu ci pexe xanaa si kenn amu ci pexe kenn amu ci pexe seetal toog ni di añ wala ngay reer yaag say xarit gën di xàqatal naan seen ataay jékki-jékki rek suuf si génnee nga seen si sa yéeg sa jàbbar yi ni bëlëb ci ci nit man loolu ci nit man te def la dul tàgg lu dul tàgg lu dul tàgg al seen kattan ëpp na te bu nit réagirul ci dëgg ñoom ñu réagir ci dëgg waaw seen kattan ëpp na waaw safara kattanam ëpp na ndox kattanam ëpp na gerte kattanam ëpp na suuf si kattanam ëpp na ci man xamul parce que looluy dëgg waaw def naa ci way sax Alaaji Malick Cissé bi moo ko bind ma ñu leen seen bomb yi bu xasee laal bàmmeel ba ma xam rek geeru Irak dootul jeex maa leen ko wax waaw yàlla xam na ko waaw dootul jeex mukk waaw maa ko xam maa ko xam pourtant nag ko nag yu mel noonu Maodo def ci daan am yitte kenn xamul lu ko jiite mais daf ci am yitte yitte yu doy na ñëw mu wax nag ni buñ ko bàyyoon ci luxal cosaanam nit dina ci mën liggéey mais dañ ko def taarib moo tax kenn xamatul foo ciy jaar dañ ko arabisé ma ko wax wante rek yàlla rus na liir rus na mag rus na ndundat rus na ñetti ñi moo yu bare di di sooxe nekkoon ba tey addina tukki nekkoon ba tey addina tukki boo seetee ñëpp ñeent ñeenti contrainte yi mu wax te ñeenti contrainte yëpp nee ñu ñaar la ci moom te ñaar yi ci des ci génn ko moom buñ ko seetee ba ci biir ñu ni ñeenti contrainte yëpp jigéen a bi ci biir xamalatu ummuhu karhan wa wadaatuhu karhan yàlla nee na jigéen ëmb nee na contrainte la mag ko kon nag ormal leen ko nee mucc konkurrentele maa ko tek jigen nee na kon nag kon may na kutiba alaykum alqital wa huwa kurhun lakum nee na contrainte guerre mën a mu kallaf mu pour noos ñu ko kay xarit nee na contrainte nee na ci man la jóg wala contrainte delloo ma njukkal kutiba aleykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum ñu ni ñaar ñi jigéen a ko moom ba ñaar yi ci jigéen a ko ay jigéen bu jëkkëram nekkee ci guerre càmmiñam nekk ci guerre daf koy bokk ak moom kon nag ñetteelu contrainte ñu ni jigéen bu bëgg a delloo yàlla njukkal itam mu teg ko koor muy woor ba tey contrainte la ñu ñeenti contrainte yépp ni jigéen moo tax ñu war ko ormal moo tax ñu war ko ormal ci biir loolu moom mu war a ormal boppam ndax wax ni jigéen ju ëmb li muy laata ëmb li ñu éliminé ci ay liir kenn xamul na ma toll benn suuf soxna tuuti mais yàlla ñàkkul parce que daf koy récupéré feneen ku ku xam na loolu dafay récupéré lu lu ne euh, gis nga li mu daj ci reenu bi pour mu judd li mu daj ci bi pour mu judd. Ondan, ondan da mu jot. benn la ci moom benn la ci moom su ko defee jaar ci moom yow moom yow moom yow moom yow ba nga xëy nekk chef de village foofu rek ne la léegi ay coopéré ak système bi waxtaan ak sa ruux sa ruux waxtaan ak sa jikko jikko jégg wax nga àndandoo not not jumtuwaay bàyyi ولكن ada فيه تأمي جمل تأمي جمل لسان àwọn méjì kan tẹ bọ́ọ̀lù lérí yan nígbà hàmì yan asáàbù lọ́kùtà ñi nga dañu ci battu te dundal ñaram léeg-léeg ñu jël seeni sañ-sañ am lu ñuy jëfandikoo mais di ñëpp ko man soo ko seetee mu mel na gis mag ñi dañu daje gis mag ñi dañu daje dem seeti Cheikh ni ko ñaanal ñu ñu bañ a wàcc as-siraatul mustaqim mu ni leen mënul nekk aada àddina ak nit ñi fu nga xam ni siratul mustaqim mënatul dund li mën a dund li mën a dund mooy nga nekk far bu jar lu ko neex lay doxe loolu fi des ndax yàlla it am na lu mu xam ñi mënul dem ca kaw bu ñuy yemee ci supplication yi am na fu leen mën a jaarale jaarale ba ñuy jariñoo ko loolu suñu kilifa yi yàlla may na leen ko waaye ci charte nga bañ leen saaga waaw dafa benn mbokk bu ñëw jox Sëriñ Babacar àddiyaam mu delloo ko ma gis jeexitalul ci kanamam mu ni ma di nga ñëw Dakar fan yi ma ne ko waaw mu ni ma Dakar mu gis ko mu ni ma xam nga lu tax gi def ma ne ma